li wóor te am mooy Diego Armando Maradona dina des ci anaalu football mondial yi xarañteem wër d'abord Argentine balaa muy génn ba mën a wër àdduna bi wërngal këpp waaye ci club bu Naples club bu Kalidou yi foofu la jégito wone boppam dëgg-dëgg muy diggante 1987 ba 1990 loolu sax dina ko may mu ànd ak dëkkam Argentine fexe ba jox ko coupe du monde ca atum 1986 ca Mexico nekkoon rêvam bi mu amee fukki at ak ñaar ñu ngi fàtt fàttaliku match référence Argentine ak Angleterre bitu loxo boobu moom Maradona waxoon ne loxo yàlla la waaye bit ba mu ca teg ba léegi bokk na ci but yi gën a rafet ci football moderne Diego Armando Maradona mun nañ ne am na carrière bu mucc ayib waaye ci wetu carrière boobu aussi am na ay njombe yu bari ñu ci mën a toftal rawatina ci wàllu drogue ñu ngi fàttaliku 1991 moom Maradona dañ ko testé woon mu positif ci cocaïne gannaaw benn match calcio dinañ jàpp tamit ci Maradona digganteem yenn dirigeant politique yi ñu daan ŋàññ à l'époque ku ci mel ni Fidel Castro wala boog sax Hugo Chavez Diego Maradona dem na waaye li wóor am mooy àdduna bi duñu fàtte mukk xarañte ak talent Diego